joté ci produit yi nga xamanteni modi pomme de terre wala sax soble yagon di don ab jafé jafé lol ci bop njabot yi rawati né nak bu tabaski bi daan jubli ci wanté sélu gi nak lamu wané modi né yoyé jafé jafé tambali nañu won ginnaw sa ba nga xamanteni société bi di sénégal ndia dorna ab ligéyam soami Agri di ab filiale ci bobu la société nga xamné mo gallo lepp luy mbayam pomme de terre mi soble wala sax yenen ak produit ci jamono ji lamu am ci stock rek tollu na ci 80000 tonnes ci pomme de terre yi nga wara tassaré ci marché yi image yi lé nak ñi gis ci bile tool wute nag lool li nga xamante ni moom leen jàllale si yenn médias yi jëm si jafe-jafe yi produit yile wala sax ab seeraayam. parce que tey ñu ngi wax ne pomme de terre bi dafa manqué pomme de terre bi amul may dalal sénégalais yi ne sénégalais yi pomme de terre mu ngi ne fi gàññ mu ngi ne fi gàññ du jeex ndax tey li ngeen ji si yéen seen bët ñu nga xam ne ne dafa war a dem sur le marché dépassé na quatre-vingt mille tonnes Sénégal nag seen rythme de consommation ni ma ko mën a waxee passé wul quinze mille quinze mille tonnes. par mois donc ku am 80000 tonnes si stock fii 000 juróom euh, benn weer wala juróom ñaari weer yaakaar naa war a mën a am si tiitaange muy euh, pomme de terre di soble soble bi sax niñ si mën a wax bari na ndax soble bi soo leen gisee sax ñun ñu produire c'est pour dañu ñëw en complément li nga xam ne ne sénégalais di produire ndax ñooñu amuñu aussi capacité de stockage ce qui fait que ñun li tax sunu sunu sunu produit du yéex a génn loo gis rek waxtaan la entité chaque fois que suñu commencé suñu production buy démarré octobre ba ñu koy récolter au mois de janvier suñu paree dañuy toog ak ARM ak producteurs yi ak ñëpp ñi nga xam ñoo concerné si ñaari produit yooyu ku nekk ñu définir la kañ ngay génnale kañ ngay ñorle nangam ñun ñi nga xam dañu teel a ñorle peut-être suñu moyen d'utilisation bokkul ak le petit producteur dañuy permettre ñu jaay pour alimenter marché bi li si des dañ naan dem leen jaan chambre froide mais prix yëpp une agence de régulation du marché qui fixé et c'est des prix souvent conseillés le prix bi passé il était de 330 francs le kilo monnaie fait sur le marché ñun suñu nous de une chambre froide xam ngeen cour chambre froide ni mu Le courant banque il fa da personnel il da ngay mais su Nous, ñun duñu passé 9750 fi mu nekk ni pomme de terre dem mais Si bëgg yobu Dakar c' est vrai que di nga fay sa transport soo fayee sa transport loo ko munti jaay-jaay saagu pomme de terre warul mën a passé dix mille cinq cent ndax nag téeméeri dërëm ko ko am si saagu nekk am nga bénéfice loolu nag suñ ko defee dañu investir lu am solo investir yi mu ngi gis si chambre froide yi ñu tabax chambre froide yi ay chambre froide euh, multifonctionnel la ay chambre froide yoo xam ne ne aussi euh, pour pomme de terre kese la multifonctionnel yi ñooy jël soble ak euh, pomme de terre nag am nañ si lu bon bon bon juróom Euh, ben fi ñu nek ni si mbaan ah yenen ñaar yo xam ñu koy tabax am ben bo xam jam ñaajo la pour faciliter euh, aussi li nga xam mom lañu jaay bir ndakaaru donc lolu mom ay investissement yu am solo lu am doole la mën na wax ne matna na fukki euh, milliards si alal jëm 100 milliards ndax suma xolé tay li fi nek ci investissement ci walu chambre froide nek ci investissement ci walu matériel euh tracteur yeex semoir yeex li nga xam ne ne moom la ñuy yi fi nek Euh, sif xayma fofu la toll loolu nak dafa am ñukay jël di ko utiliser ñukay jël di ko utiliser moy sénégalais yi ñoo fi nekk di liggéey souvent dañuy taf-tafal euh, Sénégal India wala dara si indien yi Sénégal India man mi maa créer ma maa joxe tur bi mu tudde Sénégal India ndax c'est un partenariat sud sud indi Sénégal indi Inde tay fi ñu nekk ni tuddatul Sénégal India ba tay sax ñin ñaa ngi naan Sénégal India tay Swami le tudd Swami Agri Sénéindia dafa féetale bopam léegi ci walu tabax mais lepp lu jëm ci mbéy jëm ci agriculture Swami Agri le tudd Swami Agri nak ñi fa nek c'est des sénégalais direction bi yépp ñi fa nek ay sénégalais techniciens nak dina am ay ingénieurs yu si bokk ndax sen xam-xam ni ñu xam ci souf ni ñu xam ci mbéy daf ñuy jëriñ su weesoo nag liggéey bu am solo bi nga xamante ni mi Agri mu ngi koy amal jëmale si souveraineté alimentaire si li nga xamante ni moo di responsabilité sociétale am nag moom société bi dal dinay soppi bu baax baax li nga xamante ni moo di kar karkaramu gox ba si ay infrastructure wante itam dundi ni askan wi loolu yëpp nag di wane rek ab déggoo gu mat bu mu dëkkee ak askan wi. fii nag sunu politique sociale dafa def ne lépp luñ fi liggéey dañ koy waxtaan ak chef de village dañ koy waxtaan ak population yi dañ koy waxtaan ak jeunes yi. ndax ñooñu ñooy suñu interlocuteur li ñu liyax ñoom bari na ndax pour ñu ñëw fi aussi am si jàmm ak ñoom dañu am ay protocole yu ñuy signé population yi ak chef de village yi loolu moo indi tey suñu RSE bi moo indi tey ñuy tabax ay jàkk moo indi tey ñuy tabax ay école di tabax poste de santé loolu moo indi ñuy indi adduction d'eau ba si village yi loolu moo indi ñu defal leen ay lampes solaires loolu moo indi aussi ñuy partager ak ñoom de moyens financiers yi nga xam ne ku si feebar di nga am moyen yoo xam ne fii lañ la ko jàncal ngay ñëw jël si ko indi say ordonnance ñu jox la nga dem faji loolu yëpp terewul dañuy continuer aussi di accompagner population yi tey ñu bëri fii ñi du béy seen canal yi su amee problème ñun ñoo koy defar pour ñu am ñoom ndox am na ñoo xam ne aussi dañ leen di accompagner loolu nag partenariat du tere nag dina am ñoo xam ne dañuy kaas ñii dañuy yuuxu naan dañu jël seen suuf jëluñ suufu kenn donte sax kenn mënul lamlamé njëriñ li société bi la am ci walum xeyum ndaw yi wala itam ci li nga xamanteni te di souveraineté alimentaire mom société bi la nak légo lég rek mu dal di ngonté ay cadre yi nga xamanteni cadre kàddu tuuma kese la lu ci melni nak nag accaparement gi nga xamanteni ñing ko koy jëñ té dara amul sax sa tolé muy bay si lé gox. niñ koy bayé nak tay niñ fi ñëwé aussi bari na ciow yu si am parce que ciow li ciow li ciow li yépp moy ñuy wax accaparement de terre. ñun accaparé ñu kenn 2008 2009 la ñu une attribution jox ñu 5000 hectares nous avons commencé liggéey kay la ñu ni diñu wax lu nekk avons fait lu nekk té ñun liñuy liggéey fi nous gis mais ñun bañuy Nous avancé aussi si liggéey bi dañu am ño xamné dañu fait seen ni Nous ñu ñëw ñu jaay ñu seen peine et soin ñu jënd ko ko ko ba am 2800 et quelques hectares yo xamné ne ay bo état du Sénégal suñu ne boo état du Sénégal ñun ñu ko état moo ko moom tiitre ko loué ñu ko jox ñu ko pour une durée bien déterminée loolu dañ koy exploité yi si des dañ ko am aussi régulièrement ñëpp xam nañ ne rab yi fakki ni mu nekkee woon si dëkk bi ba muy ñëw fii ñun ñëwuñu fi ñu jox ko suuf boobu jamonoy université Gaston Berger la woon moom na bi mu demee ba liggéeyatul te gis ñun lu ñu fi liggéey muy njëriñ rek si askan wi si la ñëwee nee ñu ah dama bëgg ñu def partenariat ma jox leen samay peine yi mu fi am ñu jël ko loolu nag ñu ngi siy exploité actuellement huit cent hectares. du tere ñun dañuy continuer di tàllal loxo ñëpp ndax jàmm moo gën ay te jàmm jooju si la ñu nekk pour accompagner population yi. ñëw pour torokal nit ñëw pour nangu alal ñëw pour nangu suuf ba mu fi ñëwee mboolem lu mu am fii suuf négocier la waxtaan bi d'accord man mi ci la bok coow bu ngeen fi dégg ci wàllu suuf nun noo ko def kon nag fii jàmm rek lañu fi soxla. jàmm la ñu fi bëgg noo ngi sant borom projet bi noo ngi sant population bi ci ànd noo ngi sant monsieur Souleymane Ndoye ndax lu yëngu fii ci coow mu ñëw waxtaan du def force du dóorle du ëpp doole négocier ba nga xam ne ñëpp day nekk ci un niveau. waxuma ko pour mu nekk de damaa ko ak suma diggante ak yàlla suma tiraay bàmmeel. gisuma benn armeel bu ñu sulli gisuma ko tey gisuma ko suba armeel yaa ngi nale. ba ñu ñëw wax leen fii sunu maam ñoo fi tëdd dañu collecteur bu ngeen demee foofu léegi gis ko sulliwuf benn yàq ñoom ñi ne nag di ay soxna ay boroomi kër naka noonu itam ay ndaw société bi lee dal di jox xëy fësal nañu bu baax a baax li nga xamante ni moo di seen kontante si nekkin ak société bii di Senegindia nga xamante ni laata muy ñëw si bile gox am xëy jëfoon na fa lool wante si jamono jii lu tollook ñeenti téeméer si ay jigéen ñi ngay liggéey si bile tool naka noonu itam ay boroomi kër. ba tool bi ñëw sunu xale yi nga xam ne dañ doon dem si àll bi dem di taxawal dañ doon ñëw ba ñu ngi liggéey waa gi léegi nag mu ngi léeg-léeg mu ngi génne xale yu góor yi ñun nag nag bëgg xale yu góor nañ liggéey ku ñu wax yokkal da nga doon def waaye ku deful du ñu ko wax yokkal fukki at ak juróom maa ngi fii si biir tool bi ma nag Alphaso amoon naa mille sept cent cinquante mooy doon xëy fii ci wil si jigéen ñi bokkul ak góor ñi ci tool mi kese bokkul ak góor ñi jigéen kese jàmm kese la ñuy ñaan biir réew mi ndax tool bi mu ngi dox normal comme ni mu war a doxee nit ñaa ngi liggéey normal comme ni ñu war a liggéeyee ndax ñun suñu forage presque mu ngi mel ne ñoom ñoo ko yore lu ci am problème ñoom ñoo koy réparé léegi nag ñu ngi li sant société bi bu baax a baax wàllu liggéey bi moom alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi si commencé gis suñu bopp bu baax a baax amoon ay jafe-jafe ndax da nga bëgg a liggéey du am foo liggéeyee da nga bëgg xëy xëy du yomb mais depuis ñëwee ba léegi ñi ngi xëy normal macha allah di faj suñuy soxla te duñ ko jooytu kenn gis na suñu bopp bu baax ndax dëgg macha allah gis bi rafet na élément gis na seen bopp ñun tam superviseur gis na suñu bopp bu baax tamit ndax ñu ngi faj suñuy soxla ko dëgg fa yàlla ndax avant muy ñëw metti woon na waaye bi mu ñëwee ba léegi macha allah benn jigéen jàmmatul dara. projet bi nga xam ne mooy Souhamy Agré bi mu fi ñëw teel yi sax dañu doow fii gis ngeen mbooloo mi lu toll na ko vingt amul fuy nit yendu kiram yëpp fii la ñu ñëw di daan seen doole ñoo ngi am seen teraanga gas na fi ay canal tabax na fi ay moske tabax na fi école tabax na fi jàkk sunu nak yi lu ëpp juróomi junni nak ñoo ngi fi ak kar poros bi moo leen yor fii la ñu faale dégg bii moo nuy sukkali bii moo nuy may nu mun nekk ak sunu kër nu mun ànd ak sunu jabar yi mun ànd ak sunu doom yi ah fande amul yendu añulo amul raflé yëre amul projet bi mako indi fi donc pour que ñun ñu wax né ñun dañu nekk taxaw ci djublu li nga xamné mom le président Diomaye Fay taxaw pour souveraineté alimentaire employabilité des jeunes gis ngeen ne fii à peu près 2500 et quelques jeunes qui y travaillent rien que ici dans ce projet mais li may rassuré wat sénégalais moy pomme de terre bu ko kenn jooy bu fi kenn def surenchère bu fi kenn yëkkati prix prix bi muy génnee bor chancé neuf mille sept cent cinquante le sac te su demee ba Dakar ku ko mën a jaay mën nga kaa jaay ba dix mille cent maximum onze mille franc mooy commerçant détaillant bi nga xam ne ne war naa mën a jaay pour sénégalais yi mën a tabaski si jàmm asalaam. ki nga xamante ni nag moom moo di directeur exécutif bi di Souleymane Ndoye nag dal di profité nag si bile visite dal di woo ñi nga xamante ni ñoo di autorité yu bees yi ñaamal ab doxantu si bile tool nga xamante ni dafa ànd ak bu baax a baax li la di seen programme jëm si wàllum souveraineté alimentaire.